te mooy fukk fan ak juróom benn ci weeru tam xarit nuyoo bi ak ziar bi nag ñu jiital ci sëriñ Omar mi nga xam moo ne ci bopp njaboot suñ Mbàkke di xalifa suñ Mbàkke ak mboolem njaboot suñ Mbàkke nga xam ñoo ne ci gannaawam mi leen di nuyu di ko ñaanal su borom yàggal ko fi te mottali ay naalam waaye sàkku ci moom nag mu jàllale leen lu nuyoo ak ziar boobu ci al am lil muridin Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñaanal ko suñu borom nottali ay naalam di nuyu baax mbooloo mi nga xam ñooy saytu jotaay yu mel ni di bànqaas ci daayiratu Salamul Wusul di rafetlu jotaay yu baax a baax waaye di nuyu suñu bokk yi nga xam ne nii ñëw nañ fii teeral jotaay bi te nga tudd leen léegi sëñ imaam sëñ Mbàkke abdourahman ak docteur Serigne Samb ak boroom xam-xam yi nga xam ne ci jotaay bi ñëw taaral ko ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm ci pàkk bu tedd bii di pàkkub sëñ Mbàkke Bousso di Guédé Bousso Euh, sëñ Mbàkke ni ko waxee doon nit koo xam ne nii buñ doon wax nit ku matale daanaka moom mooy sëñ Mbàkke mooy nit koo xam ne nii foo ko xool gis fa lu mu fa liggéey loo xam ne nii mënees na cee waxtaan boo ko xoolee ci wàllu njàngaleem sëriñ bi gis ci taxawaay bu am solo boo xam ne ci baree bari tudd nga ko mu taxaw ko ci waaye itam boo ko xoolee ci Sénégal gi ñu bokk ñun ñëpp nga gis taxawaay yu am solo yoo xam taxaw na ko ci te réew mi ñoroon ko lool tem daan jëfandikoo baatub senegal ak ñi woo waa Sénégal di wax yenn waa senegal daan ko jëfandikoo ci fànn yu bare bari waaye itam boo ko xoolee ci ummal islaam yi bépp dangay gis ne ku amoon relation la ci jullit yi yëpp tegtale ñor ko ko mbirum jullit yëpp ñoroon loolu itam beneen dimension la boo xam am na ko waaye itam jéggi ko nag ba ci ñi nga xam ne sax du ñoon ay jullit ñoom it mu daan mu daaraanteeg ñoom ci façon bu rafet boo xam ñoom tam joxoon nañ ko cër lool ba seqoon nag moom yu baree bari kon nit la koo xam ne nii fànn boo ko xool dangay gis ne am na fa taxawaay bu am solo boo xam ne nii taxaw na ko fa te defe naa ne danay baax léeg-léeg ñu koy fàttali ndaw ñi ngir ñu mën cee jànge ngir ñu mën cee roye ndax buñ nee samaam mooy Serigne Mbacke Bousso am na lu ñuy séentu ci loo xam ne nii war nga koy bàyyi xel bu baax a baax ci say wax ak ci say jëf ak ni ngay jëflanteeg nit ñi ak ni ngay doxalanteeg nit ñi nga bàyyi ci lu mel noonu ndax bu fekkente ne dañuy joxe misaal léeg-léegi ne danañ tegtaloo ci ne nangam yoon la ndax gis naa waa Gede di ko def kon waa Gede am nañu responsabilité bu mag a mag te ci nettalikat yi nettali nañ ne am na mbokk mu mas fii ci pencum Gede fekk fi ñuy yoote dam ye mu jóge fi dem ci beneen dëkk gis ñuy wax werante ndax yoote dagan na wala daganul mu ne dagan ndax gis naa romb naa pencum gerte ñu di ko fi loolu nag su fekkente ne tegtal ba waxuma sëñ Mbàkke waaye pencum gerte sax dañ ciy tegtaloo kon waa gerte am nañ responsabilité bu mag a mag boo xam ne war nañ koy bàyyi xel ci seeni doxin waaye itam léeg-léeg nga wax ak nit mu ne la yaakaar ji dee gerte la des donte xëy na am na ñoo xam sax xamuñu gerte mën naa am sax xamuñ la ci biir lépp waaye ñoom seen yaakaar dafa dëgër ci waa Guédé ba tax ñu am yan bu diis boo xam ne nii gàllu na ci seenu loos te ndaw ñu war koo xam ndax ñu mën cee aw mag ñi ci awin woo xam dana rafet kon suñ bàkki jëmm joo xam ne nii moom fu nekk mënees na ko faa waxtaane ndax lu nekk am na lu mu ca def loo xam ne mënees naa toog wax ci moo xam muy doon loo xam day jariñ àddina bi waaye day jariñ doomu adama ci kaw suuf waaye day jariñ ak nite ak yu mel noonu bu ñu xoolee nag ci li ñu gën a jege nag muy Sëñ Mbàkke ak yoonu murit taxawaay Sëñ Mbàkke ci yoonu murit mën nañ ko séddale ay pàcc yu bari njëkk yoonu murit di taxaw Sëñ Mbàkke amoon relation bu dëgër ak sëriñ bi radiyallahu anhu njëkk yoonu murit di dëgër di taxaw waaye itam yoonu murit di door a taxaw mu am ci taxawaay bu am solo boo xam ne taxaw na ko ci wetu sëñ bi waaye itam bi sëñ bi demee ba nekk ci diggante tukki yéeg yu mel noonu mu am taxaw bu am solo taxawaay bu am solo boo xam ne taxaw na ko ci diggam ak bi waaye itam gannaaw ba fi sëñ bi jógee mu amaat beneen taxawaay bu am solo boo xam ne nii taxaw na ko kon dafay mel ne moom ci yoonu murit sos baag dund gaag ak gannaaw sëñ bi lépp daf ci am ay taxawaay yoo xam taxaw na ci te ci nekk manis na caa waxtaan bu nu xoolee taxawaay bu njëkk bi te mooy njëkk yoon wi sosu ku nekk xam na li boole sëñ Mbàkke ak sëriñ Tuubaa ci wàllu mbokkuk deret nga xam ne nii ni mu koy ni mu ko bindee fii ci bayit wi uusee ko yam na amati waxaali nga xam ne kon sëñ bi jàppe na ko doomi bàjjanam ndax doomi bàjjanam la ci fànn ndax waajuram wu jigéen ak Maamor Anta wala boog waajur wu ak maam Oran soxna ñu bokk soxna ñoo bokk maam Balla kon bàjjanam la ci fànn waaye itam ku nekk xam ne soxna jaara ni mu demee ak suñ bisoo bi mi nga xam mooy waajuram bu góor muy kon doomi nijaayam ci fànn loolu nag taxawaay boobu nag ci la seeni relation tàmbalee waaye tam dañoo xam mbokk ko gis day am xarit xarit day am ci biir mbokk nit da ngeen bokk sax te du ngeen jaxasoo waaye nag boo bokkee ba nag mu nekk sab xarit nag jaxasoo ko day fés moo tax ñoom sëñ bi da ko defoon muy ab xaritam ndax bu sëñ bi comme demal na tuwooy ne ko xalili yow sama xarit anisi yow sama wéttal yow ki nga xam ne nii ay jikkoom yëpp doy na ma ñooñu ñi ko sëñ bi wax ñoom bariwul te sëñ sëñ bi wax na ko sëñ Mbàkke kon seen diggante ci wàll googu sori woon na lool kon du woon mbokk deret gi rek waaye itam nag dañoo seqoon ak xaritoo ak cof sofeel goo xam doxoon na seen diggante moo tax ni ñu ko dégloo léegi ci marché bi ko sëñ Moussa Ka defal gis nga bi mu wax ne sëñ bi dafa demoon Saalum di seeti nijaayam ñoom sëñ Bousso bi yebal ko ku ñu wax sëñ Maxtaar si ne ko demal ne ko am lu mu la wax moo lay sax bokk na ci la mu ko waxoon ne ko nag gis naa da ngay bëgg génn waaye toogal ci réew mi waaye nag na fonk sëñ Mbàkke te fonk Cerno kon ñaari tur yooyu moom ñëw na ci xëy na loolu ab gis-gis la bu xóot boo xam ne sëñ Maxtaar si amoon na ko te loolaa taxoon sëñ Bousso bi di ko jeebal ngir waxtaan ak moom ne sëñ sëñ bu mag bi mi muy ñëw foofa booba sëñ Mbàkke ci jàng alxuraanul karim ba toll ci sóoratu Taaha ci laay yu mujjee sóoratu Taaha fa la ko sëñ fekk jël àlluwaam bindal ko fa gannaaw bi nag bi sëñ ñëw bi ñëwee laajtee ñu ne sëñ bi ana sëñ bi ñu ne sëñ bi dem na foofa la daal di fekk fekk jël àlluwaam daw topp ci gannaaw sëñ bi ba ni xissa bi mate ba fam fekk sëñ bi ba sëñ bi ne ko yow laa doon xaar fii yow laa fi doon nekk ne ko tam yow yaay saa nandoo nandoo nag ci wolof mooy koo xam ne nii sa nattangoo la sa nawle la te loolu dafay lu am solo nawloo gi ko sëñ bi nawla woon donte ab taalibeem la woon waaye sëñ bi daf ko nawla woon ci fànn yu baree bari dem na sax ba ne ko budul woon di man dul ci man di yow loolu lépp kon ay tegtal la ci ne ñoom ñaar seen diggante njëkk yoonu mu di taxaw sori woon na lool te dañ gis ne suñ mbàkke lépp lu mu jàng ci alxuraan suñ beeg ko waaye itam xam-xam njëkk yëpp suñ beeg ko jàngal te gannaaw barab yi mu dem yëpp di fa sàkku ci xam-xam tam sëñ bee ko fa yabal ngir mu yokk fa àlluwaam ba xam ngeen ne ci Mbàkke Kajoor bi sëñ bi woo eh, taxawal yoon wi wala boog bi sëñ bi woote woote bi te mbakki Kajoor fekkoon na sëñ Mbàkke sëñ bi yabal ko dëkk bu ñuy wax Faal fa la déggee ne sëñ bi am na lu mu digle mu dal di jóge foofa ñëw daal di jaayante bokk ci njëkk nga xam ne nii jaayante ñoog sëñ bi waaye moom kon ku nekk xam na ne kon moom njëkk maanaam sëñ bi taxawul yoonu murit dañoo jaxasoo mu def ko kilifaam sëñ bi féete ko fu baree baree bare kon jaayante nga xëy na day ne ngir mi mbir mi ngir nga dugg ci fa nga jaayante waaye moom fekkoon ak diggam ak sëñ bi moom ak ànd amoon fa foofa nag la liggéey ba tàmbalee gën a tàmbalee nag ñu àndaat nag àndaat bu xóotu xóot boo xam ne nii lu baree bari mas na ko caa jànge kon suñu bàkki njëkk yoonu di taxaw moom liggéey na ci wetu sëñ bi liggéey bu am solo boo xam taxoon na sëñ bi doyloo ko ba bindoon ci moom bayit yooyu nga xam ne nii léeg-léeg dañ koy faral di jàng te mu siiw lool te jokkalante woon te jokkalante woon ko seen diggante ñoom ñaar kon foofa tàmb dafa tàmb ba daal di na dafa ànd ba daal di tàmbaleen mësuñoo taqali ko benn yoon nag diirib li sëñ bi ne ci ñawaam yi dem géej gi ci géej gi mësta taqali ko sëñ Mbàkke ba ci xalawaata yi mu daan def sax gis nañ ci histoire ñu ne daana nekkoon ak moom ci biiri xalwatu yoo xam ne ni da koy def ak la ca xew ci Mbàkke Bawol ba mu taalif Masaalikul Jinaan bu ñu may ak dégg nag dana baax am ak daal tuuti bu ko defee yooyu yëpp dafay tegtal ne kon seen diggante ñoom ñaar moom sori woon na lool ci njëkk yoonu mu di taxaw ba bi yoonu mu di taxawee kon foofu lañu ànde taxawaay bi sëñ Mbàkke am nag yoonu murit kon te bu ñu ko bëggee tënk ci wàllu euh, li ñuy wax politique ak li ñuy wax ab taxawaayam ci wàllu xam-xam loolu itam dañuy xool moom ban lan la ko sëñ bi féetale woon ci yoon wi loolu ki ñu koy leeral mooy sëñ Modou Bousso sëñ Modou mooy taaw sëñ Mbàkke ba kon boroom xam-xam sëñ Mbàkke itam doy woon ko ci bare bari bi fi sëñ Mbàkke jógee ci atum 1946 moom moo bind tarjamaam moo ko defal biographie li ñuy wax biographie sëñ Modou sëñ Mbàkke sëñ Modou moo ko bind ci atum 1946 gannaaw bi sëñ Mbàkke bàyyi ko ba muy ñëw ci diggam ak si def ne wallahu cheikh alqada wal ifta wa tadris wa qiyaas al masajid wa rad ala al barawat assaadira min al aqtaari wal amsaar nee na bi li mu ko féetale woon mooy jàngale ak yare ci diine ak ubbee ci diine ak natt jàkk yi fànn yooyu xëy na sëñ xarim dana ñëw waaye itam nag doonoon secrétaire am Aada ay man mooy loxoom day jooram daan ko tontu ay lettres yi daan jóge ci buur yi waaye itam daan ko tontul lettres yi daan jóge ci dëkk yi ak boroom xam-xam yi bu ma saa ñëw suñ Mbàkke moo koy tontu. loolu doom am na ci firnde yu baree bari ndax boo xoolee ku mel ne si Cheikh Sidiya Baba gis nañ ay lettres yu baree bari yoo xam daanaka jox ko leen teg suñ Mbàkke waaye itam gis nañ ay lettres yoo xam sëñ bi moo ko bind Cheikh Sidiya jaarale ko suñ Mbàkke mu dem ci moom. ba ci sax Cheikh Sidi bi mu wàcceeb lettre njaal bi ko sëñ bi doon bind sëñ Mbàkke ko bind waaye itam sëñ Mbàkke la ko bi joxoon mu yóbbu ko gànnaar mu nekk lettre njaalam lettre boobu defe ñu baree bari gis nañ ko ndax mi ngi fi kon loolu la farale ci mu ko def xam-xam bi ko bi farale woon nag muy njàng njàngale mu def ci bu mag a mag a mag liggéey bi njëkk defit ñu koy xamal dafa ne sëñ Mbàkke daana bind ci ñaar fukki fànn ci fànn xam-xam loolu nag bariwul ku ñuy gis mu koy def ñu bari day gis ni kii faqih la wala kii adib la maanaam borom xam mu diine la wala borom xam mu làkk la wala borom xam-xamu mathématique la wala yu mel noonu waaye koo xam da boole ñaar fukki fànn yoo xam ne benn bokkut ak morom ja nga di ci bind di ci jàngale loolu bariwut ñu koy gis ku koy def te suñ moo nee na suñ Mbàkke daana bind ci fànn ci xam boo xoolee ni ko ni nga ko waxee suñu sarif léegi lim bind ci lu jëm ci ni ñuy jaar maanaam ni ñuy wéetale yàlla loolu bind na ci lu am solo muy amaanul balit di téere boo xam ne nii tawxiid day jàngale boo ñëwee ci ulumu quran bind na téere boo xam ne nii ni ñuy bindee alquran ci cosaan la ciy jàngale waaye tam nu ñuy jàngale nit ba mokk alquran te doo ko teg yenn coono yi loolu tam bind na ci ay téere bind tam ci miraas miraas am na téere bu ñu ci bind risaala bu ci def boo xam ne ni dëppoo nañ ne moom moo ko bind ak yeneen saraa yoo xam ne daf na ko ci yeneen mbir ba ci siira bi nga gis nii siiratu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam li ñu tuddee tawaar yu babxa tawaar yu babxa na téer boo xam ne naaru gànnaar moo ko bind waaye sëñ Mbàkke moo ko saraa muy saraa boo xam ne ni boo koy liir yi sew yi sëñ Mbàkke wax daf lay jaaxal ndax nu mu mën a xame daal naar yi ak seen cosaan xamin bu mel noonu di lay jaaxal saraabu doy waar la ko def muy tawaariwu ba paa boobu naaru gànnaar moo ko taalif muy siira Seydina Muhammad suñ bàkkee saraa ko saraabu leer nañ kon bind na ci siira noonu tam la bind ci siirab Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu tudde ko saada tulaab boobu nga xam ne ni ñu bari dëppoo nañu moom tam ba tey moom moo ko bind noonu la daan bind ci wàllum fëlëg gis ngeen sëriñ ñëw ngi ci ci yawaaqitu salaat bi waaye itam laytaaye ko nu ñuy natte jàkka ni ñuy natte xibla ci boo nekkee Sénégal loolu tam da cee bind bind yu leer nañ bind ci tam yeneen bayit yu tasaaroo yu baree bari waaye itam bind ci li ñuy wax système métrique système métrique mooy maanaam mètre la la koy jàngal mètre mooy lan ay multiple mooy lan ay sous multiple mooy lan millimètre mètre centimètre kilomètre mille bu ci nekk mu wax la leen nii ak nii lañ koy nattee far sax ñu ngay xam ci lañ natt ci géej gi bu nekk mu wax la muy tolloo nga xam ko ba ci xaalis bi ñu jëfandikoo franc franc bi bind na ci franc mooy ñaar lan nangam franc mooy tolloog lan lu nekk mu bind ci ci wàllu ko wàllum calcul gis nañu bind na ci am na bay mu ci def yoo xam ne nii da ciy tënk li ñuy wax jadwalu darb maanaam table de multiplication yi ñu jàng ñu wax deux fois deux quatre deux fois trois six da ciy bind ba dun baj wun bahwun ba dun nga ne deux fois deux quatre baj dun nga ne ba bahwun nga ne de fois cinq dix wala yu mel ndax xam noonu la ko tënk ci ay bayit boo ko mokkale day mel ni mokkal nga table de multiplication te ku nekk xam na ne léegi la calcul yomb ndax jumtukaay yu xaral yu bari li waaye bu njëkkoon boo mokkalu table de multiplication lu baree ba dan la raw ndax doo mën a calcul kon foofu bind na ci loo xam ne nii moom itam mi ngi mu bàyyi bind tam ci yeneen fànn yu baree bari ci fànnuk balaax fànnuk tasawuf fànnuk tafsir quran ci ay lettres yoo xam dañ ay laaj yoo xam dañ ko doon laaj mu cay tontu daanaka bu ci tontoo day tolloo akub téere kon fànn googu itam si Mbàkke bind na ci ci fànn yeneen fànn yu baree bare moo tax tubaab yi seen bopp bindoon nañ ne ci naw guñ ko nawoon ci ay jamono wane ne moom ñu ëppoon ay téere ci Sénégal ci la bokkoon tuddee ko nit ku lettre nit ku lettre ci ñoom mooy nit koo xam ne nii sa xam-xam daal jàng nga daal am nga daal niveau bu kawee ci wàllu jàng jàng rek loolu boo demee ci revue du monde bi nga xam ne nii 2013 euh, 1913 lay tolloon boo demee ca du so du sori page 91 da nga fekk ñu bind fa lu mel noonu tubaab bi di wax daaru ne juróomi kilomètre diggam tubaab wax sëñ Mbàkke wane ne moo doon chef feefu njabootu Mbusoo bi jamono yi moo ko doonoon wax nag ay melokaanam wax sax ne bu masaan féex day taalif ay téere kon ñoom joxoon nañ ko cër lool xamoon ko lool kon xam-xam ci fànn boobu liggéey na ci lu bari waaye itam sëñ bi dénkoon ko nag muy jàngale njàngale mut mu def ci liggéey bu mag a mag tey daanaka mag ñi ngay dégg ci murit gi ñëpp ñu ci baree bari sëñ bi jàngal na leen sëñ Mbàkke jàngal na leen rawat na njabootu sëñ Tuubaa gi ci boppam ñu ci baree bari jàngal na leen ci góor ñi ak ci jigéen ñi waaye itam magi yoonu murit yi ñu baree bari jàngal na leen waaye itam magi Sénégal yu baree bari ci ay jamono ak moom ñëw nañ jàng ci moom te gannaaw ba mu sosee école Gede ba noppi itam ku nekk xam na ne école bi yàgg na koo sos ba mu nekkee Mbàkke woobe diggante boobu daan na jàngale ba mu fa jógee dem kër Sërif doon fa jàngal waaye école bi dëgg dëgg bi nga ko sose bi mu ñëwaatee ci atum 1902 bi mu ñëwee te Touba ci dëkk bi ñuy wax Lasar nga xam ne boobu njaboot gi mosoo bi ñu ngi dëkk ci wetu gaa wetu raay bi moom mu dànd tuuti dem def fa daara yi tudd al Azhar xëy na doon ko barkeeloo ci Azhar gu siiw ga nga xam moo nekk si foofa tam mbooloo la fa jàngal yar leen fa toppatoo leen bañ tegu ci yoon mu door xoon nag ñëw gede daata 1917 wala 1918 daara ji tam continuer ñu baree bari jaar fi mu jàngal leen daanaka magum murit moo gis bu ñu lay wax jaar-jaaram dañ la wax ne Sëñ Mbàkke jàngal na ko mbokki mbusoo bi yi nga gis tam ñu ci baree bari moo leen jàngal alxuraan jàngal leen xam-xam toppatoo leen ci fànn boobu kon njàngale mi moom mosu cee jóg gannaaw mu ne bu mënatu ko tam yar wala boog jot gi maytu wala boog yaram yi maytu ko ak njabootam ñoo ci wuutu ku mel ne Sëriñ Moodu nekkoon jàngalekat bu mag yàlla mayoon ko xam-xam bu xóotam lim jàngoon lépp mën nañu wax ne da mokkaloon ba noppi dégg ko lool. wax nañu sax bis suñ mbàkke mas naa def fatwa bi mu defee fatwa bi noppi suñ Moodu ne ko man de am naa ci xalaat mu ne ko bisimilah ba suñ Moodu génnee xalaat ba suñ mbàkke ne ko loolu de moo gën a jib daal di jël xalaatam bàyyi xalaatu boppam waaye lam ci teg moo ëpp solo def ne alhamdulilahi la si araxani bi waladi haza maa ngi sant yàlla mi nga xam moo ma noppal sama doom ji loolu def naa ne. tey bu doon ñu baree bari bu seen doom bu ñu waxee ba seen doom teg ci baat dañuy jàpp ne daf leen manqué respect waaye moom sëñ bàkkee noonu la ko doxal kon ku sëñ Mbàkke na woon xam-xamam la ba ci sax bi fi sëñ bi jógee gannaaw ma sëñ bi bi mu wayee araaka sëriñ ñëw nga ci léegi muy xasida gu am solo sëñ Mbàkke def ko ci sëriñ bi ñenn ñi dañuy siiwal naan sëñ bi dakoon bu ma wayati ndax ba mu wayee nit ñi dañ may xam te booy doon ndax danga maa xam te ba mu wayee nit ñi dañ may xam te xëy na moom bëgg doon nit ñu xam ko loolu na xista la waaye daal ci mu way sëñ bi daanaka xasida googu moo ci gën a siiw moo tax gannaaw bi bi fi sëñ bi bàyyi ko wax nañu marsiya lu ko waaye sëñ Moodu la sant mu defal ko marsiya mooy ak suuful am ixtilaalu boobu nga xam ne ni ñu baree ba dañ koy faral di gis kon sëñ Moodu ku teel a wut sëñ Mbàkke la ci njàng mi ko jàngal lépp lu mu jàng moo ko jàngal waaye naw ko ci xam-xam bi lool gannaaw bi tam sëriñ Xasan ku nekk xam ne ne école Guédé teel naa dugg ci loxoom lool moom sax dafay mel ne euh, sëriñ bi moo ko santoon ne ko euh, njàngale mi sëñ Tuubaa ci boppam da ci amaan ndigal sëñ bi di jàng ak jàngale moo tax moom mu gëmoon ne jàng ak jàngale moom maanaam ndigalu mbirum sunu boroom la waaye tam daf ci wayalaale ndigalul yàlla ndigalul sëñ Tuubaa di laanu moo tax mës koo bàyyi ba bis bi mu fi jógee sax war a dem Màkka dafa jàngale ba noppi door dem duggu ci oto bi keroog lañ ko mujj a gis kon bis bu mujj Sénégal moom jàngale na ay leçon door a dem moom it bari na ñooy dégg ñu naan sëñ Mbàkke moo leen jàngal ñoom sëñ Asan moo leen jàngal ndax biñ fi ñëw boo fekk na sëñ Mbàkke commencé dugg mag sëñ ba Assane la leen booleel ba ci sëñ Abdou Khadir imaam da ngay dégg ñaan sëñ Mbàkke moo ko jàngal dégg sëñ Abdou Khadir sëñ Assane moo ko jàngal Cheikh Mamadou Moutada sëñ Assane moo ko jàngal sëñ Mahamadan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii bi ñuy ñëw gëne boobu nañ fekk ne sëñ Mbàkke dugg mag sëñ Assane moo leen jàngal loolu tam def ci liggéey baree bari moo tax yàlla mayoon na ko mu jàngal baay jàngal doom ndax moo jàngal sëñ Abdou Khadir imaam waaye jàngal tam sëñ Mamadou Abdou Khadir lu baree bari ci xam-xam jàngal sëñ Mamadou Moutada waaye tam jàngal sëñ Mamour Moutada lu baree bari ci xam-xam jàngal suñu Muhammadan waaye jàngal tam ak njabootam suñu Mbàkke ñu ci topp ñu ci bare bari jaar nañ fi mu jàngal leen kon ñooñu yàgg nañoo liggéey ci xam-xam liggéey bu am solo waaye itam suñu Mbàkke yemu doon xam-xamam daf koo yaataloon lim gën a liggéey ci xam-xam ci Sénégal mooy li ñuy wax nationaliser xam-xam xam ngeen ni bu njëkk téere yi daan jàng yi cëpp dañ ko daan jëggaani te ku nekk xam na ne téere ka koy bind environnement bi muy dund day feeñ ci téere ba lool lool moo tax dañ naan la boo ma waxee téere booy liir fi mu ne ma wax la yow yaay kan fi nekk nii boo ma ne téere sàngam laay liir rek ci kaw téere bi ngay liir mën naa cee xam sa personnalité yow ban personnalité nga yor moo tax téere nit ki ko taalif jamono yi koy taalif environnement bi ko taalif fi ni woom toll woon xalaatam fi mu toll woon dafay feeñ ci biir téere yi moo tax bari na li ñuy tee xam-xam te du xam-xam ay aada ki cosaan la ñu néew nag ñoo ko ràññat ñoo ko mënta ràññ ñoo ko mën a ràññat muy xam ak culture science ak culture ñu néew moo leen man ñoo leen mën a ràññee boo gisee tey ñu naan diw dafa naare wala diw dafa tubaabe mooy diw amul xam-xam ndax xam-xam du naare du tubaabe yooyu ay aada ak cosaan la kon nag ñoom naar yi bi ñuy bind ñoom seen naare googu day feeñ seen bind suñ la ko jàngalee nag tàmbale ko ca ba alif ba ca yàgg dangay jàpp ne dañ bind ca téere ba lépp xam-xam la nga war koo jël di ko jëfe te fekk na ba ko doon xool 80 pour cent wala 70 pour cent yi seen aada ak seen cosaan la mën naa am 20 wala 30 pour cent moo ci doon xam-xam nga jël lépp nag boole ko te mënoo leen xàmmee nag loolu mooy jur léeg-léegi nga dem jàngi ba ñëw boo ñëwee dootoo mën a jëflanteeg ñi nga bokkaloon cosaan ndax da ngaa yor yeneen cosaan yi bokkut ak seen cosaan noonu tam la amee ci tubaab bi nag noonu la amee ci yeneen làkk yi ngay gis nit dem jàngi fa ñëpp ñëw indaale aada ak cosaan defe ne dafa jaxasoo xam-xam te mënuñ leen a ràññee moo tax suñ Mbàkke li mu njëkk liggéey bokk na ci fexe ba nationaliser xam-xam tawxiid boobu ku nekk xam dañu ko daan jàng téere yi ñu ci bind bari na lool liñ ci wax bari na lool ñeen bind ko ci kon la taxoon mu koy taalifaat mooy bëggoon koo gën a dëppale ñun suñu cosaan bëggoon koo gën dëppalee ku koy liir xam ne li ab Sénégal yi moo ko bind nga gën koo mën a nangu moo tax mu nationaliser xam-xam waaye fi nationaliser xam-xam fi mu gën a feeñe mooy ci xibla yi xam ngeen ne ilmu nujum mooy li ñuy wax astrologie astronomie liñ ci doon jàng téere yi ñu bare bari bitim réew lañ ko taalifoon rawatina muqaddima suusi bi suusi bi ñu baree bari moom lañ ciy jàng ak ñu ko saraa ñu ko def moom lañ ciy jàng te ku ne xam ne ne yooyu yëpp lañ koy lañ koy wax am na gox yoo xam moom la dëppool waaye dëppawut ak senegal ñoom lañ lay wax lu ci bari bari nattukaay yooyee ci seen barab lañ ko doon natt dem na ba ci calendrier yi nga daan gis mag ñi fonkoon ko lool bu njëkk boo ko ma teppi heure yi julli yi ñu ciy def heure u Maroc la weer sax la léegi bu ñu nekk benn fan te Maroc du bokk suñu benn fan ci ñun fii mu dal indi ay jafe-jafe yu baree bari tax duñ ko xam motax señ suñu bu ñëw lim ñëwee def moy xam-xam bobu mu xëc ci ko fexe ba def ko mu deppok Sénégal motax ci gëstu gum doon gëstu ak liggéey ba ko sëñ bi doon liggéey la ci xam-xam motax wax nañu bimu démé makkata Makkatal Mukarrama jaxasoo fa ak borom xam-xam yu baree bari waye bokkon ci la gënon a moy mu fexe ba xam bis bi nga xam ni moy musamatu samsi sams ca Makka bis ban lay doon mu xam ko ba noppi ñëw Sénégal nak fas yéenee liggéey ba bis bobu mu xam ban bis lay tollal Sénégal ndax bis bu am solo la ci wàllu nattukaay ci wàllu ilmul falak loolu tam mu liggéey ci ba bind ci téere waaye tam nag nekkoon nit ku nangoo sonn ci xam-xam ku nekk xam nga ne sëñ bi bind na ci naaju xadaayil xaaji ne laa yoxoteeka baax doo illaa iza axteeta kullaka wala boog na mu ko waxee xam-xam du la jox tuuti ci mbiram du dul da nga koo jox sa lépp moo tax képp ku bëgg xam-xam da nangoo sonn nangoo fanaan nangu ñame xiif ñame néewi nelaw ñame wéetaay ak yee ci aju yëpp suñ Mbàkke yooyu ku ko ñeme woon la ndax boo demee ci maanaam biographie fi ko suñ Moodu bind buy wax ay melokaanam bokk dañu ko waxee ne ku na ku man ñeme noppi la waaye tam ku néewoon lekk la ku néewoon nelaw la ak yu mel noonu dana koy bind ci biographie boobu loolu bokk na ci yitte gum yitte woon xam-xam joxoon ko nag yitte ju mat sëkk fu mu masaan dégg boroom xam-xam dana dem nemmi ko ji ko waxtaan ak moom moo waraloon relation yi bari yi mu seqoon ak El Hadj Malick seq ko El seq koog Euh, ñeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi woon ci Sénégal ngir xam-xam boobee lañ seqoon ci moom. moo tax wax nañu sax bi mu demee nekkee ci kër Serif dégg ma El Hadj Malick foofu la gënoon kii ndax am na barab mu daan daje boo xam bu ñu mësaan daje di waxtaan ci seen mbiri xam di ci leeralante di ci fàttalante seen biir foofu la seen relation doxewoon ba El Hadj joxoon ko cër bu mag a mag boo xam ne nii ñëpp xam nañ ko seere sam ci def bu wax ne man de si mbirum Serigne Touba El Hadj Mbacke Bousso mi ko topp donc doy na ma ci tegtal. ndax ni ma ko xamee ci wàllu xam-xam ak ni ma ko xamee ci ragal yàlla ak melukaan yi ma xam ci moom ku mu topp sa gannaaw kooko doo ko tuuti kon kooku tegtal la ci ne moom joxoon na ko cër te loolu itam gis nañ ci lu baree bari suñ sërif ñëw nga ci xasida gis suñ mbàkke def gannaaw ba mu fàccee liggéey te bis dem nañ ci waawoon alaaji abdul sis al amin ci boppam moo taxaw nett li ne si alaaji malik bi mu wàccee liggéey eh, si sëñ bu mag bi radiyallaahu anhu alaaji sëñ Mbàkke bu solo yabat ak maam Cheikh Anta ne leen bu ngeen demee na fa am ay bis na ngeen fa toog ba bis ba dellusi loolu si Abdou Aziz Al Amine moo ko nett ci kanam mbooloo mu baree bari ci Tiwaawan moom nag foofu la yam waaye ñun loolu dañ cee jàng lu am solo xam ngeen ne àdduna ñaar moo ko mooy xam-xam ak alal fu mu daje rek àdduna mën naa jeg kon nag ku toll ni alaaji Malick bu wàcceeb liggéey sëñ bi yabal fa maam Cheikh Anta bokkoon jëpp alal jamono yooyu waaye yebal sëñ Mbàkke Buso bokkoon ñëpp xam-xam jamono yooyu ñoom ñaar bu ñu fa dajee bu dee lu ñu war a lijjanti la dana lijjanti ko bu dee lu ñu war a leeral la dana leer loolu mun leen na ngeen fa am ay bis kon loolu tegtal la ci ne maanaam xam-xamam la woon nañ ko ci fànn yu baree bare noonu nag la ko séqe woon nag alaaj Abdoulaye Cissé jaamal ba alaaj Abdoulaye Cissé jaamal duppee ko kenn ci ak njabootam ba jaamal sax tey ñi ma fa mujj dem ñëpp boo fa demee jógee gédee dañ lay naw dañ lay naw jox la cër ndax xam gu xam sëñ Mbàkke ak yéene ju am ci moom ndax xam bu bari kon moom xam-xamam foofu fees na ci fànn yu baree bari kon sëñ bi moo ko farale woon mu def ci liggéey bu mag a mag boo xam ne nii kawe na njort moo tax sëñ Modou ba muy bind def ne te woo fii seexu wa anhu raadin nee na sëñ bi bi mu fi bàyyi ko ngërëm na sëñ Mbàkke am na ngërëm sëñ Mbàkke am na ngërëm te loolu tam sëñ bi moo ko bindal boppam ñi ñu xam ñi toppoon ci sëñ bi ñi ci sëñ bi siñeel boppam seenu taalibe bëriwul te jëlee nañ sëñ Cerno bu somin suñu laay mu nettali ne sëñ Mulaay moo ko nettali sëñ Tuubaa moo ko wax nee na bis ci njaarim dafa toog sëñ tubaa sëñ Tuubaa ne ko Mulaay day Tuubaa yi dañoo luqi jur lu nekk dañ la koy laaj dem nañ bi sax ba laaj ma kan mooy sa dëgg-dëgg taalibe man ne leen Mbàkke Buso mooy sama dëgg-dëgg taalibe loolu sëñ Ceerno moo ko nettali sëñ Mulaay moo ko wax sëñ sëñ tubaa moo ko wax sëñ Mulaay kon moom sëñ bi moo ko siñeel nangul ko taalibe waaye itam boo demee ci mañ moo bi nga xam ne sëñ Tuubaa sëñ Abdu Lahat moo ko sëñ bay bind am na ci lettre boo fa demee da ngay gis ne al muridu loolu itam signalé boo xam ne sëñ moo ko si kon moom li ko sëñ bi dénkoon da cee dem ba jeex tàkk wane ci yoon wu mat sëg waaye itam bind bàyyi ndax xam-xam itam lu mu bari bari su fekkente bindoo bàyyi fi ñii ñëw sa gannaaw mën nañoo bañ a xam sa dayoo xam-xam moo tax sëñ bi Mbàkke li mu bindoon ba léegi boo koy liir dalay jaaxal ndax langue bi muy maanaam làkk bi muy jëfandikoo rek ci wàllu luxal arabiya da ngay defe ne tey lañ ko bind ndax mag ñi bu njëkkoon way lañ gënoon a xam ñu bari ñoom bi ñu bind ci way lañ bind suñ Mbàkke nag li mu bind li cëpp wesar la wesar nag ku maîtriser arabe lool lool lool moo koy def ndax lim laaj te moom lim wesar boo ko xoolee dafay mel ne maanaam euh, tey lañ ko bind mu ci ci waxin wi ak uslub maanaam style bi nga xam ne nii ci la ko waxee mu bu leer naññ ba nopp baat yi yomb lool li muy wax leer naññ ba nopp muy as-sahlul mumtane mooy lu loo xam dafa yomb lool boo gisee nga xam man te boo ci duggoon da nga xam ne ñëpp mënuñu loolu noonu la bindee foofu ci mbind yu am solo yoo xam def na ko moom ci boppam sax nag daane ko wax ci may gu ko suñu borom ubbil ci xam-xam daana wax ne su ma jàppee sama xale bind baat yi dañuy njëkkante ci man benn baat bu nekk naan bind ma bind ma bind ma te loolu ku yàgg a bind da nga koy xam nekk nii bu ne bindkat nga dëgg-dëgg boo sëggee di bind mën ngaa bañ a sëgg loolu ku ku kuy bindkat dëgg-dëgg da nga koy xam kon suñ mbàkke foofu la toll woon ci xam-xam liggéey ci liggéey bu mag a mag ci diggam mag ndigal ko sëñ bi joxoon waaye itam seqoon koog nag Sénégal gépp sëqal ko euh, ba sax ci naar yi suñ sëriñ ñëw nga ci naari gànnaar yi nañ ko joxoon cër boo demee tey Cheikh Sidiya ci seen bibliothèque ba ñu am ca but limite boo fa demee ay correspondance yu baree bari yoo xam ne dafa doxoon diggante Sëñ Mbàkke ak Cheikh Sidiya ma nga fa dem nañ fa bis boo xam ne nii nun dañoo amoon jaaxle ndax danoo ñëw ñu ne Cheikh Sidiya benn doom la amoon te ñu xam ne euh, Cheikh ñoom ñu ne Cheikh Sidiya benn doom la amoon te ñu gisee Cheikh Sidiya mi ñu xam ñun dafa bari njaboot mu jaaxal ñu loolu waaye sëñ Mbàkke moo ñu gàggante ndax am na téere boo xam ne nii kenn ñoom moo ko taalifoon ci seen maam Cheikh Sidiya mag ma Cheikh Sidi Makhtar Kunti ba mu ko bindee pare da koo jox sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke def ci ab tawti maanaam def ci ab laytaayal ko lu mat ñetti paas ba juróomi paas la ci bind ci yu mag yi bind ko ci leeral nag di ci leeral téere ba def ay yokk yu baree bari yoo xam ne nii waajuroon bind téere bi saa mel sëñ sëñ Mbàkke moo ko gën a xam Cheikh Sidi Makhtar Kunti ca la leeral nag ne Cheikh Sidi Mokhtar Kounti yu moom moo amoon benn doom bu tudd Mahamadul Khalifa Mahamadul moo jul Cheikh Sidie Baba ak rakkam jeneen nga xam ñoo fa bokk nekk ñoom bind na ko ci seqoon koog ñoom ci wàllu xam moo tax bu ñoom demee bari na ay lettres yoo xam yu yoo xam Cheikh Sidie ko bindate sëñ Mbàkke ak boo demee dañ la koy wan nga ñu jox cër sëñ Mbàkke ñu jox cër sëñ Mbàkke xam ngeen am na fii benn naar bu fi ñëwoon kilifa la ci naaru gànnaar am na lu mu fa jiitamul mat sëkk lu mag ba mu ñëwee ci màggalu Tuubaa bi mu demee bi mu laataa ñibbi si ñëw na fii siyaar suñu bàkk ci barab bi keroog bi muy dugg ci barab bi dafa summi ay lu baree bari si mbaxanaam yu mel noonu ànd ak doomam doom ji summee daalum si mbaxanaam ñu siyaar suñu bàkk ndax kóllëre gu suñu bàkk seqoon ak bàyyam ci wàllu xam-xam moom la doon xel di si fii kon diggam ak naari gànnaar yi moom defe naa seere yi ñu ci wax leer na naa ñu waaye itam digganteem ak naari Arabie Saoudite ndax ku ne xam ba mu demee Arabie Saoudite xam-xam bu mu wan moo taxoon ñu naw ko ba képp ku daan dem Màkka

ku nekk xam na ko waaye nag ubbi ko ci àdduna bi dafa am solo moo tax njàng mi luñ war di xalaat la di ci gëstu di ko jéem a dëppaleeg li jamono ji laaj ndax suñu mbàkke loolu la doon doxe moom fekk fi rek ne diw ak waxoon nañ lii du kenn du ci teg baat déedéet lam fekk diw ak wax ko da koo jël moom xalaataat ko tëggaat ko ci tëgginu boppam ngir mu gën ñoo jege loolu nag liggéey la boo xam ne ni ñun ñoo toog rek ne suñ maam suñ mbàkke mooy suñu maam def na lii ci xam-xam dañ cee war liggéey ba ba mu gën a dëppoog jamono waaye itam lu ñu mat a beesal ñu beesal ko lu ñu mat a yokk ñu yokk waaye bu mu doon loo xam dañ koy denc mu nekk ci kàggu yi wala mu doon loo xam dañ koy mel ne lu koy tax diis di ko sellal di ko sacré loolu def naa ne du xam-xam ndax suñu mbàkke dundi wutoon noonu kon loolu ab soññee la ci ndaw ñi nga xam ñoo tollu ci dugg ci buntub xam-xam kon kooku moo doon suñu mbàkke lim doon am xam-xam nag bokk na ci li ko mayoon loolu mooy woyof gu woon ci moom xeeban boppam lool nag mës a gis boppam ci xam bi li muy bari bari mbindam yu baree bari bu koy bind buy signé danaan ah ahqarul fuqara wala ahqaru man yura fil ard nee nag ki gën a xeebu ñu ngee gis ci kaw suuf wala ki gën a ñàkk ci way jàkk yi mooy bind lii moo signé lii am na ci yoo xam sax ko bind pare nangu wujjoo def turam mooy waral léeg nga gis ay yu baree bari nit ñi ndax moo ko bind wala bind ko ndax da koy bind ba pare bañ na bëggum bëgg na bu moo tax du ci bind turam kon yooyu yëpp nag tegtal la yoo xam ne nii euh, ñi ci toll tey sàkku xam-xam war nañ cee jële ay bind yu mag sëkk kon daal suñ sërif foofu ci wàllu xam-xam moom defe naa ne mënees naa tënk foofu bu laajee ay leer itam ñu ñëwaat ci kon kooku mooy suñu bàkki ci wàllu xam-xam noonu nag la doxee ci wàllu politique bi politique nag bu ñu koy wax eh, ñu bari dañu jàpp ne daa baaxul waaye politique nit ak politique suñu borom daf ñoo moo ñaale politique moo tax am na ci borom xam-xam bi boo xam ne bañ ko laajee kan mooy nit daal al insaan xayawaan siyaasi nee na nit mooy animal politique mooy animal boo xam ne nii mook politique dañ leen boole politique nag bu ñu waxee weesuwul nu nuy saytoo mbirum mbooloo mi ba teg ko ci yoon loolu kon lislaam amu ci bañ wala sax safaan bi lislaam daf koy digle ndax danañ wax ne wa fil amr baatub amr li muy tekki foofu mooy mooy pouvoir pouvoir bi nañ koy niñ koy niñ koy saytoo ba teg ko ci yoon siñ foofu loolu nag te politique génnu dig digal boobu kon mag ñi ñoom ñëpp amoon position ci wàllu politique xay na kon bu ñu waxtaanee taxawaayu sëñ Mbàkke ci bi laaj ñu xam ba xam ndax sëñ Tuubaa amoon na position politique wala amu ndax bu ñu dëppoo ci ne sëñ bi amutoon position politique kon taalibe bi bu mel ne sëñ Mbàkke dañu jàpp ne warut am taxawaay ci politique. waaye nag sëñ bi dafa amoon position politique bu leer nañ boo xam ne nii danga koy ballulu ci ay doxal ak doxalinam ndax ci lislaam ñun dañuy jàng lislaam nanguwul sama yoon new ci benn muy dëgg dëgg kenn mënu koo weddi da nga caa ànd par force da nga wala mu ñàkk a nekk dëgg lu dul dëgg moom ak koo mën doon kenn wërta ànd ak yow ci lu dëgg kon danga ko war a weddi wala muy loo xam ne nii dëgg ak caaxaan daf cee jaxasoo da nga naan leen dindi leen caaxaan yi ma ànd ci bu leen ko dindi du ma ci ànd waaye nag ooma ci lu ma yàq lu may defar loolu déggin la waaye lislaam santaanel wul loolu moo tax sëñ bi radiyallaahu anhu ku amoon position politique la sëñ bi opposant la woon moo tax li ko boole tubaab yi dëgg-dëgg du problème mu julleegu woor ndax julleegu woor am ñu fa doon def te xarit tubaab yi la woon sax alxuraan ji am ñu ko mënoon lool jàng ko ba mu rafet lool di ko jàngale sax te ñu xaritoo woon ak tubaab yi kon li boole woon sëñ bi ak tubaab yi dëgg-dëgg problème politique la mooy ne tubaab yi dañuy ñëw Sénégal pour not ko bëgg fee doxal seen régime bopp sëñ bi ñëw bëgg am projet de société boobu boo xam lu bëgg a doxal te ñaar ñooñu mënuñoo nag il faut mën doon ñàkk ñu fenqaloo loolu bokk na ci leen njëkk a fenqale kon sëñ bi dafa opposé woon te loolu bind na ko ci téeréem yu baree bari seen yëf yi soxlawuma ko nag ak di leen xeeb wan leen du ngeen dara ak yu mel noonu lépp mu koy wax tubaab bi kon amoon na taxawaay bu leer nañ dafa opposé woon ku nekk xam na ne ñaar rakkaa yi mu julli woon ndar du woon force ndax du woon farata kon moon na ko bañ a def waaye lu tax mu ko def teel a wan bi ne ko man dem li ngay wax ànduma ca yow te yoon yu ma jaar ci lay kon sëñ amoon na position politique mu des nag ban position politique mooy dafa opposé woon daf ñoo jàngal nag ni ñu opposé woon njàng mu am solo xam nga dafa am ñu wax muharada ak ay isyaan madani muhaarada mooy da ngaa opposé wu isyan ma di da ngaa li ñuy wax désobéissance civile maanaam mooy dangaa ngaa fépp xëtt sàtt réew mi ñaar yooyu nag ñii politique ba léegi dañ koy jaxase danoo jàpp ne opposé mooy ku opposé wu mooy koo xam ne nii lu réew mi taxaw nga xëpp ci suuf fu réew mi ni lii nga war jaar nga jaar feneen loolu nag nekkoo muhaarid waaye nte da ngaa nekk fii isyan da ngaa nekk ci li ñuy wax désobéissance civile moo tax sëñ bi tubaab yi mësta ànd ak ñoom ci lenn waaye nag teewul ba mu fi nekk xamoon na ne luwaay fi tubaab yi tëral luwaay yi jeng la mës cee ànd waaye nag luwaay yooyu ñoo ko àtte ne ko dañu lay exilé nga dem Gabon mu ànd ak ñoom ci àtte ba dem Gabon luwaay yooyu ci lañ jàpp ne ko da ngay ñibbisi mu ñibbisi luwaay yooyu moo ko ne da def def résidence surveillée Diourbel mu dem toog fa luwaay yooyu moo nekkoon bala ngaa def dara ngay bind autorisation moo tax ba mu tax jumaa Tuubaa mu bind damay demaat autorisation kon luwaay yooyu sëñ woon waaye nag xamoon na ne da ciy ngir di ko xeex moo tax luwaa kenn du ko xët loo ko bañ bañ bañ da nga ciy tëggu ba nopp nag tënku ci kaw luwaa boobu ba noppi wëlbati nag di xeex luwaa boobu ngir mu jóge loolu mooy yoon yi noonu nag la sëñ bi jàngale ci wàllum politique ndax mbooloo moo gis mu nekk balaa tudd mbooloo dañ koy takk mi ngi mel ne sayu mat rek sayu mat boo ko takkul ay mat lay tudd balaa tudd say da nga koy boole genn takk takk ko la nga koy takkee nag mën naa nekk buum gu dëgër këng wala mu nekk fenifeer wala mu nekk sagar wu ñor xomm waaye lu mu ci doon boo ko xeebee ko dootu amu say ay matt ngay am moo tax luwaay yi ngay gis ak règlement ak tërëlin yi ngay gis bu ko kenn xeeb ba xëttu bis bu ñu ko xëttee askan wi tas loolu gis nañu ay réew yu ko def boo demee tey réew mel ni Somalie réew mel ni Libye réew mel ni feneen feneen luwaay fa nekkoon lañu xëtt réew ma tas la mbooloo ma tas loolu nag ku xam li nekk ci tas mbooloo tasu askan doo ko def moo tax sëñ bi ma amoon na position bu leer nañ mooy àndutoon ci li fi nekk waaye nag dana woon naa ci tënku ba xeex ko ba indi fi leneen tënku gum ci tënku woon nag ba xeex ko nag moo ko may ba léegi ñu koy tudd di ko waxtaane ndax am na ñu jamonoon teeloon ñooñu ne woon dañoo fipp ci kanam tubaab bi fuñ mujj ñenn ñi tubaab bi da leen a faagaagal ñenn ñi suñu borom soppax ci ñoom xamuñ seen ak mujj waaye ña ca bari ñu jàpp ñoom léegi lañ doon woote bañ leen faagaagal wala su borom soppandi ci ñoom foofa la mbir ma yem te sëñ bi nag ba léegi dafa mel ne mbiram dafay gën di jolli kon système la aw yoon la woo xam ne nii daf koo wane ñu war cee jaar moo tax sëñ Mbacke mën doon a ñàkk bañ am position politique liñ ci njëkk xam mooy ku nekkoon diplomate la ku xamoon diplomatie la langage diplomatique daf ko maîtriser woon lool lool lool lool boo gisee ni muy bindee rek ci nga koy xamee yu baree bari booy lire tàmbali bi léeg-léeg sax da nga ah kii nag moom ba daa farak tubaab bi am nañ ci bis kilifa gu mag ci dëkk bi ñu dem fële ca isbu tarxee bañ doon def seen exposé bi lettre sëñ Mbacke bañ ko exposé am na kilifa gu ñëw ne kii de wóoru leen ko fay daf ndax nangam ak nangam waaye xay na boobu xamutoon langage diplomatique langage diplomatique dafa am booy wax ak nit ñi am na fooy jaar ba man leen a convaincre ci li ngay wax ñu déglu la moo tax sëñ Basiiru bind na ci menoon baaxal xadim ne sëñ Mbàkke Buso moom la sëñ Tuubaa njëkk yoon yónni Ndar loolu ñu bari xëy na xamuñ ko na baaxal sëñ Mbàkke sëñ Basiiru bind na ko ba nee na sëñ Mbàkke la sëñ bi njëkk a yónni Ndar ba mu fa demee ba toog tubaab bi ba waxtaan ak moom kañ daan wax naa ko yaa moom Ndar ba mu waxtaan ak moom ba pare nee na nee na tubaab dafa kontaan ba jox addi yu bare ba ne ko boo demee joxal ma ko sëñ xëy na kon gannaaw bi nag la jaxase yi bari mu lëj te it xëy na mënutoon a ñàkk bala cee xew lépp xew ja ba sëñ bi dem waaye sëñ bi ku ko wóolu woon la ci wàllum langage diplomatique. moo tax sëñ bi daa ko bindiloo ay lettre yi jëm ci tubaab bi moom la ko daan bindiloo jumaay tubaab bi ko sëñ bi bëggee autorisation bi moom sëñ Mbàkke la ko sant mu bind ko bind ko ci langage diplomatique boo xam ne tam tubaab bi accordé nañu autorisation bi jumaa ji mënoon a taxaw kon ku teeloon xam langage diplomatique la daan ko jëfe réew mi ni muy doxe wax na ko ci tàmbali bi ne la daana jëfandikoo baatu bi yéen Sénégalais yi lu baree bari te booba Sénégal nekkagul nation bu ñu xam bu ñu naan Sénégal boobu ay ay réew maanaam ay réew ndaw ndawaan ñoo newoon ci biir ay province moo fi newoon Kajoor Bawol Saalum yu mel noonu waaye moom teel naa xam baatu yéen Sénégalais kon ñun ñëpp mu dugal ñu ci biir di ci waxtaan ak ñun tàmbalee ko ci buur ba mu gis ngay dox doxin wudul yoon mu taxaw wax ci ak yow loolu responsabilité boroom xam-xam ñëpp la boroom xam-xam du nekk ci gannaaw buur sëñ bi wax na ko ci jàngale na ko sëñ Tuubaa jàngale na ko nee xam boroom xam-xam ci kanam ci keru keppaaru buur nee mooy aw weñ ci kaw yi nangam loolu waxoon na ko benn boroom xam-xam kon boroom xam-xam ngir nga mën a am position bu leer nañ da ngay neutre bul far bul opposé bul far bul kii waaye da ngay am faruma ci pouvoir bi opposé waaye dina damaa wax samay xalaat ci li muy doon moo tax sëñ Mbàkke nag loolu mooy na ko koo mënti doon boo juumee mën a taxaw wax yow dëgg da ko déglu tàmbale ko ci tencanoor gis ngeen lettre ba mu ko bindoon ba muy sonal taalibe sëñ bi mu bind ko lettre wax ko wax ju tàng ak fañ mujj gis nga tam bi tubaab bi ne day woo sëñ bi bind na xasiida gu am solo goo xam ne nii ñi koy gëstu wax nañ ne jàpp nañu xasiida gi de bu fekkoon tubaab bi jot na ci avant muy àtte sëñ bi mën naa am diw bu sëñ ndax wax ji mu ko wax te moo ne xasiida gi boo xoolee la mu koy ubbee xullil amiri wala tahib ka haybatu innal mahabatu waa ji mu neeñ moomam ndar di ko wooyee moomu ko waaye dañ koy wooye wax ko ak maanaam ñàngaayam beeg melokaan beeg lim sol ak fi mu toog ak yëpp wax ko wax ko li nga ko ndax dañuy jàpp ne buur bu ragloo dëgg-dëgg ñaare day ànd ko maanu wala boog ñoom ñaar war a ànd kon nag mu ne ko nag ma maanaam xëybaam bi melokaanam bi bu la tiitloo ba doo ko wax li nga ko war a moo tax bu ko jox wax sëñ bi mooy kan ak jaxase yi am ak li ko indi foofu lépp dem ba naa ñoo ñu de ay nit lañ ñoo xam ne ni laa yaarifana siwaa xisyaani masjidihim aw darsi alwaahim wal xarsi bil jarad ay nit lañ ñoo xam ne nii bu leen kenn tooñ ñoom ca lañ war a nekk ca lañ nekk te mooy lan mooy bu jaamu yàlla jotee ñu dem ci jàkka ji def ko dem nekk seen jaamu yàlla bil ma mu ci déggin wu yaatu waaye itam di sàkku xam-xam ak di ko jàngale waaye itam di bay di ko dunde ñooñu kon tooñuñ kenn amuñu kenn xarma yàlla noonu la ko toppee ci xasida gi di ko leeral ba tax nañu bari jàpp ne xasiida gi mën naa bu ci tubaab bi teeloon a jot sëñ mën naa bañ a dem kon ku teeloon intégré maanaam ku teeloon sóobu ci doxinu réew mu ñor ko lool teel na ci def na ci lu baree bari ay jéego yu baree bari ñoom it ñu doy la woon ko lool ci fànn yu baree bari xëy na bi ci gën a siiw nag mooy lisaanul xaq yatakallam si sërif ñëw nga ci moom it mu bind ko ci contexte boo xam ne ni contexte électoral la woon loolu di lu am solo léeg-léegi ñun campagne électorale ñëwee xëy na boroom xam yu baree bari état mën na leen a ger wala mu def leen yu mel wala almuhim daal ñeneen ñi sax mën nañ leen a ger jënd leen bu ko defee ñuy défendre état bi ci fànn yu bëree bëri ba tax duñu war a wax lañu war a wax suñ bàkkee nag moom ci lisaan wax yee takallam daf cee wax ju am solo wax ceeg ki ñuy fal avant muy falu mu wax ko wax ak moom wax ko ba falo ba noppi wax ñi ko fal tam nu ñu war a jëflante ak moom loolu nag mooy etaa xamal na ko ne ko nguur moom yàlla moo koy joxe waaye nag il faut nga sàkk ko moo tax campagne électorale da ngay sàkk waaye da ngay gëm ne boo gañee yàlla moo la jox nguur gi boo ñàkkee itam moo la ko xañ loolu dëkkin wu solo boo xam bu ñu ko amoon mu leer suñu bopp mooy bu campagne jotee ñëpp dañu dem campagne waaye nag kuñ ci gañee da ngay nangu ne dañ maa gañe ndax loolaa neex bu ko defee ka gañe nga ànd ak moom ngeen liggéey waaye nag ñun dafay mel ne gëmuñu yàlla ndax boo perte da nga naan diwuma xañ wala yu mel noonu bu ko defee commencé di ko bund xataal ak wala nga gañe di bund xataal ñeneen ndax dañoo ma ànd woon man kon foofu jàngale fi loolu nguur gi noo ciy jotee ne yàlla moo koy maye te ku ko soob la koy jox xay na nag dana ko lay nga sàkku mu ne nag boo ko sàkkoo ba yàlla jox la ko nag mu wax la ni nga war a doxale fonkal nit ñi bul tooñ ñiñ tooñoon tëj leen na nga leen tijji ñañ xañoon seeni àq na nga leen ko delloosi ak yu mel noonu xamal ko ne ko yàlla moo la jiital waaye bul jàpp na ngaa gën nit ñi gënoon nit ñi ëppoo leen xam-xam ëppoo leen juddu kon nag yàlla moom la soob mu jiital la kon jàppal ne kenn nga ci nit ñi kenn nga ci mbooloo ñu jiital te loolu dafay indi li ñuy wax contrat social contrat social ñiy waxtaan état ñëpp dañuy wax état li ko sos ca cosaan mooy contrat social contrat social mooy bu ñu nekkee di mbooloo ku nekk bu fekkee da ngaa dund sa ananie sa égoïsme àdduna bi du dox ñu ne kon lu ñuy def ñu nekkoon ku nekk da ngay cof ci sa àq ak sa yelleef ak say moomeel ñu boole ko jox ko kenn ne ko saytuñu suñuy mbir moo tax kañ koy jox ne ko saytuñu suñu mbir moom sunu jaam la sunu serviteur la boo xam ne ni danoo war a liggéeyal waaye du suñu kilifa danoo war a liggéeyal ñun ndax ñoo ko fa teg ne ko saytul ñu tey nii ak nii lañ bëgg nga saytoo ko boo ko deful am nañ sañ-sañ ñu jëlee la fa loolu mooy contrat social moo tax suñu Mbàkke nag ne ki ñuy fal xamal ne kat gënoo fi ëppoo fi xam-xam dañ laa doyloo fal la kon nag jàppel ne kenn nga ci nit ñi bu jàpp ne da leen gën wala da leen féete kaw loolu defe naa lu yaatu la loo xam war na xam xamal bul tooñ yooyu ñëw nañ ci kon loolu tënk nañ ko foofu bu ko defee ñi nga xam ñoo fal nag mu wax ak ñoom ne leen bu leen fal nit ba noppi di ko fakastal na ngeen fexe ba bu ngeen falee nit ki ba noppi bu fa kenn dem di ko wax sa aajo yi bopp ku fay dem ku nekk na la fa aajo yu mbooloo mi yóbbu na la fa aaj na la fa njariñul askan wi yóbbu na la fa njariñul xeet bi yóbbu nga wax fa ak moom te bu sa sama njariñul bopp yóbbu loolu def naa bind la boo xam ne nii bu nu xamoon lu baree bari dana soppi ko sunum réew kon sëñ Mbàkke ci wàllum politique liggéey na ci liggéey bu am solo boo xam defe naa ne moom kese rek was na cee mën def ay jataay yu yaatoo yaatu kon daal ci tënk kooku mooy sëñ Mbàkke ci xam-xamam taxawaayam ci wàllu politique taxawaayam ci yoon wi taxawaayam ci wàllu politique xam doxin etaatam moo tax bi fi sëñ bi bàyyi ko mu bindaat benn lettre bu am solo boo xam ne lettre bu gudd la adressé woon ko kañ daan wax naa ko yaa moom ndar ba tey yónnee ko ko lettre boobu lu ci bari la Sëñ Mbàkke leeral ci murit gi leeral ko lu baree bari ci yëf yi waaye lam ko tënkee rek mooy li ci ëpp solo mooy xam na ne mbooloom il faut que ñu nos ko te mbooloo ñu nos ko il faut que am ku jiitu te ki jiitu ay critères lañ koy tànne te loolu il faut que ñu définir ko moo tax mu xamal tubaab bi ne ko maanaam mu mu dox ci ay jéego ba dañuy wax xilaafal muridiyya sëñ Mbàkke dox na ci jéego bu réer rëy ngir mu am buñ koy buñ koy waxtaane tey xalifa ci yoonu murid buñ koy waxtaane tey mën na noo wax ne sëñ Mbàkke def na ci jéego bu am solo sëñ Musaa sëñ Musaa Ka sax bind na ko ne réeroon gind na leen ña nangam nangam na leen yóbbu leen ci taw bu am ni di Musaa ñu jëbbul yeesal seen jëbal si Musaa kon ku ci liggéey liggéey bu mag a mag la waaye diggam ak tubaab bi tam daf cay liggéey liggéey bu mag ndax ba muy jeexal lettre bi ko ne sëñ bi ne ñett la àndaloon ñett dong la fi nekkal bokkal nekk mooy ñi bokkal Mamour Anta Sali ak ñi nga xam ne ay doomam lañ ak ñi nga xam ay taalibeem lañ léegi nag mu koy xamal ne ko njabootu sëñ ñoom ñoo war a doon sëñ mu koy leeral mu ne ko ñi nga xam ne nii ñoom moo ñoo sëñ bi ñoo bokk Maam Mor Anta Sali jàng nañ ba dañu réer te xam nañ Maam Mor Anta Sali fi jógee dañ koo miraas ku nekk ci doom yi la nga ca waroon am nga ko yow nag mënoo donn sa baay ba noppi bëgg a doon bàyyi jàmbur mu ne kon ñooña jàng nañ kon duñ xëccoo ak njabootu sëñ bi daan na ko njabootu sëñ ci boppam tam da sëñ bi da leen a jàngal bañ réer te xam nañ ne aqi mag boo gisatul baay mooy aqi baay ki la mag di sa mag ngeen bokk baay bis boo demee ba gisatul sa baay moom ah, li nga waroon jox sa baay ci kilifteef sa mag jooju nga koy jox. mu ne ko ñoom nag sëñ bi yar na leen jàngal na leen ba ñu xam li ñu war a xam te xam nañ si Modou Moussa mooy mag kon ñoom ñëpp dañ topp si gannaaw si Modou Moussa kon xëccoo mënta am foofu. mu ne ko nag mu des ñun taalibe yi mu ne ko ñun taalibe yi ñaari mbir moo mën am sëñ ba sëñ Tuubaa gii. jaar fa leen bi jaar la woon te jàpp nañu loolu la ñuy def noonu la ko waxee benn njaboot sëñ Tuubaa dañuy jaar fa ñu waroon fa leen bi jaar la woon te jàpp nañu loolu lañ def te buñ ko defee dañ leen topp wala ñu jàkka ñàkk a jaar fa leen bi jaar la woon te jàpp nañu duñ ko def boobaa dañ leen topp ngir walmaal sëñ tuba kon wuute mën tam wuute gi noonu la ko leeral tubaab yi ba tax li ñu wax xilaafal muridiyya samp do tam di jéego bu am solo ndax man sibul xilaafa du man sib diin du du poste diine poste politique la même ba ci xilaafal islaam yi poste politique la maanaam yonent bi aleyhi salaam désigné wul kenn ne ko yaa may wuutu alxuraan amul fenn fi xalifa nekk kon xilaafa bu amee maanaam post politique la boo xam ne nii nit ñi ñooy taxaw xool ne kii war na noo mën a jiitee suñu biir ñu jiital ko kon nag gannaaw bi nag xëy na la ci poste problème mu ndono gi ñëw ñu koy doon waaye Sëñ Mbàkke moom liggéey na ci liggéey bu mat boo xam ne nii ngir poste maanaam xilaafa googu mën a taxaw ci yoonu murit te poste politique la kon daal tig tënk euh, mën nañu wàtte suñu kàddu di rafetluwaat jataay bu baax a baax di soññ rek du tànk yi fi nekk ñu gën a nafaraat dunduk sëñ Mbàkke gën a xamaat taxawaay sëñ Mbàkke waaye itam tax ñu gën koo mën a sàmm xamit li doon yitteem ci kaw àdduna xamit li doon bëgg-bëggam ak li mu doon bañ xamit li ko mënoon xëcc ak li ko mëntoon a xëcc alali àdduna daraje àdduna man manu àdduna mënu ko woon a tax a soppi lennam mënu ko tax soppi jenn melokaanam loolu nag képp koo xam ne nii dañ lay tudd suñu Mbàkke war nga cee xalaat xalaat bu xóotu xóot ba xam yow ban position nga war a am ci dund gi kon daal ñoo ngi daane suñu kàddu foofu wasalaamaaleykum wa